bala ñoo dem ci Ousmane Sonko Kopar Express di fi nga xam ne fa la xaalisub xaalisub Ousmane Sonko doon jaar bi ko doon dimbalee euh, am na ci foo xam koo xam ne daal gars yi téye nañ ko ci garde à la ñu wax ñu bari nag ñu ngi ñaaw njortu ni daal mën naa am euh, motif ba mooy xaalis jaar ak wala wóolu ñu bare bari mais en tout cas daal foofu la ci Kopar Express. Hmm. am na ci koo xam ne nee nañ ko nuus téye nañ ko garde à vue Express nag fa ñu doon jaarale xaalis bi doon dajaleel Ousmane. Hmm. Hmm. waaw kooku loolu mu di loolu ñu ko def noonu moom amul benn sénégalais bu mu bett. ah. waaw lu tax man di bett ma lu tax. ah yow tey jii. Ah. bu fekkee ni son bu toroxal nañ ko. Ah. waaw. ni ko fii duutoo fi liggéeyee. waaw ah. bu toog dara bopp bi jommi. Hmm. alaaji saa njoogu ñëw xëcc ko defal ko loo xamante ni moo raw la mu doon am fee mu nekkaat si gundaandaatam ak noosam. waaw. bu yàggee ñu ne alaaji saa njoogu mi lu ñu laal mu laal li nañ ko téye nii ba bu buñ lalatee du laal li waaw ñu toroxal ñëpp ñooñu nattal nañu leen. maanaam kañootal nañ leen. kañootal ay ñoom capitaine Touré ak yi Mari Sagna ñoom ñëpp da ngay xool li ñu leen def buñ leen ko defee rek ñii dañuy ñëw taxaw laaj xaalis jox ñii ñu nekkaat ci gundaandaat ak noos te ñii ki lay toroxal bëggul nga nekk si gundaandaat ak noos. koo xam ne bi mu lay dàq. Mhm. sab saak nga yoroon wala sab moto. Mhm. Ah, mu dàq la. Mhm. nga xamante ni loola nga dese amatoo sax loo sa def essence nit ñëw jox la oto. waaw bien loo xam ngaa jënd kër. nga baal ma ma nuyu bienvenue xam naa dama nekk ci émission après ñu déggoo incha allah. voilà mm-hmm. kon kon kon loolu ñu def noonu ñoom noonu rek lañ ko mën a def loolu mooy continuer suñu xeex bi lii nga xam ne dëgmal nañ ko ku ñu ko nar a yàqal dañ lay boole si duma yi. lii loolu ah yéen ku leen bëgg a yàqal seen xeex. waaw ngeen boole ci duma yi. waaw maam bu ñuy duma nit. mais li nga wax ni Antoine Diome waxu koon bi mu demee ca Laayeen nee na woon réew mi réewum jàmm la ñu ngi ko teg ci yoon te ci hmm. ñëpp jàmm lañu dox waaw waaye li nga wax jàmm la waxuma loolu dama ni la waa dama ni ndax li nga wax jàmm la bu ñu corriger nit ah. bu si kenn bu si kenn dox tànk jàmm wala bu kenn luñ lu ñu yàq maam lu ñu defar luñ ni nii la baaxe bu kenn ni baaxiwut noonu nee la baaxee lu ñu def daan bu ñu nee gonga jàmm man naa am voilà kon nag euh, Ousmane Ousmane Diagne ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal yàlla suturaa moom dem na ba ñëw nañ ko jéggal rek ndax oto Ousmane Sonko ba mu doon dajale mën naa ne mat na Euh, moom it na nañ ko ñaanal daal te bu noppee si Ousmane Sonko bii mu def tempo tempo. Hmm. waaw te bañ a dajaleetal kenn ginnaaw fii ku fi dajalee nit ki ko ki ko sabab mën naa am problème ah réew mi moom day na waar na nañ def ndànk daal. d'accord alaaji mhm. ndax jàpp nga ni motif bi comme ni ko Assane waxee loolu la bettu la woon wala da nga jàpp ni peut-être bu enquête bi jàllee leneen lay doon. waaw déglu enquête bi jàll d'abord. Euh, pour nga mën a xam exactement lan mooy cause yi. Uh-huh. Euh, loolu aussi tamit da ciy baax comme que dañu wax rek ne tee nañ ko. Uh-huh. te annoncé guñ ne lii ak lii ak lii. Uh-huh. moo waral moo sabab mbir mi. Euh, xuus ci comme Assane du yomb. xuus moom mën naa muuru ci lu ne. <laughs> <laughs> léegi nag. léegi nag. yaa ngi may tàmbali de. <laughs> Elage nga dugg samay 18 200 yi. ah dugg sa 18 non da daa wax Elage nga dugg samay 18. moom ah, non non dani non dani. non xam nga man non dani moom day déglu ba enquête bi ah, pare. waaw léegi nag am lu may tudd lu may tuddee. <laughs> léegi lu may tuddee moom kay na wax ni. nañ xaar enquête bi pare. mais léegi nag euh, su ma jógee foofu. nga xam ne comme Assane ni mu doon c'est que Assane dafa ubbi benn buntu boo xam ne euh, pour ñëw ne bu fekkente ni dañu ne lii moo tax pour tegal ay ndëgg sërëx parce que àddina lépp loo gis ay galgalaak i caxabalak ay affaire yooyu mm-hmm. su fekkente ni bi tey créé nañ système boo xamante ni bi ci la ñuy amee nga xamante ni bi lu transparent la mm-hmm. nit ñi ku ci nekk di mën a xool di gis di xam li xew mm-hmm. léegi ñu ne lu leer lii moom lii bu mu fi amati ñu tëj loolu euh, xaalis mën na duggee neneen noo xam ne dootuñu ko mën a contrôler te bu boobaa mën naa ëpp sax li nga xam ni moom la ñuy gis donc parensaay boo jéem ma tëj bunt da ngay wutal nit ñi ñu génnewaat yeneen i pexe Mhm. et pourtant yooyu yëpp mën ngeen cee bañ a yegg. Mhm. donc je pense que bu fekkee nit ki ñëw na teg benn système boo xamante ne bi bu leer la nga xam ni nguur gi sax bu bëggee ne bëgg naa xam mën naa dugg pour vérifier xam. Mhm. yëf yi ni muy demee ak yooyu nga xam ni amut leen luñ ci làq. bu nit nekkee ci loolu kooku mu ngi ci yoonu jub ak jubal. léegi nag boo ko tegalee ay ndëgg sërëx euh, bëgg ne lii du am. mu xool gis nii ni nga ko defee jaarut ci yoon mën na indi tamit yeneen voies yoo xamante ni bii bu boobaa dootoo dinga leen umpale te ba noppi du tere mbir yi di dox. d'accord te bu boobaa yaa koy kere yaa koy créer donc parfois il faut éviter yenn yi. d'accord kon mu ngi noonu Baye Assane xuus na alaaji nee nañ bàyyi ba enquête bi pare incha allah ñu daal di ñëw ci lëñbët mbir yi.